tey jii nag euh, ñu ngi fii Touba Mbacké Darou dos ci kër baay Serigne Diaw Mansour ci wetu Serigne jaw Diaw Mansour bokk ci njabootuk Serigne bi waa kër Cheikh Mansour Diaw nga xam ne ñu sori lañ ci yëf muy liggéeyu Serigne bi tey euh, waa EDB euh, ñoo ànd ak ñun ci jotaay bi ñu fas yéene amal benn interview ak Serigne Ahmadou Diaw Mansour. mu fàttali ñu lenn rek ci màggal gi ak yenn ci ay jumtukaayam kon sëriñ bi ñu ngi lay nuyu euh, di la wax nga nuyu ak telcikàd aousubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asraf almursalin sayidina muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi sawi tamkin mbokki jullit yi ñuy seetaan mbokki taliba yi ginnaaw bu nu sante bi subhanahu wa taala julli ci Mustafa alayhi salaatu wasalaam ñu santaat Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul di ñaan Cheikh Mahamadul Muntaxa suñu borom doon di ko fa yàggal te mu wér ak mbooleem njabootuk sëriñ Tuubaa gépp di siyaar tey ñaanal sunu jëwrin sëriñ Cheikh Jaw Mansour xalifa Cheikh Mansour Jaw suñu borom doon di ko fa te mu wér ak mbooleem Cheikh Mansour Jaw gépp moom nuyu mbooleem julli yi ak yi xam ne ñoom ñoo fi teew di waa ah, DB ah, TV ci seen taxawaay ci seen pasteef bi nga xam ne am nañ ko ci bisub Cheikh Ahmadou Bamba bii nga xam ne mbooleem jullit yi rawatina taalibe yi ñëpp seen xel ak seen xalaat ak seen yitte jëpp Tuubaa kon ngeen bàyyi seen yitte yéen itam ñëw laxasaayu di fas yéene ànd ak mbokki taalibe yi ci liggéey bu sell bi nga xam ne sëriñ bi da joxe ndigal waaye it ànd ceeg mboolem ñi nga xam ne ñoom nekkuñu ci réew mi nekkuñu biir Touba ngir ngeen bëgg ñoom ñu dundandoo ak ñoom bis bi tax ngeen bàyyi seen yitte ñëw kon noo ngi leen di jox seen wàccuwaay yéen ñi fi teew ngeen nuyul ñu mboolem équipe bi nga xam ne ñoom ngeen àndal di nuyu sëriñ Mamor Diaw mi nga xam ne moom ngeen àndal di sunu doom. tànk euh, sang say mii ngeen àndal ak mboolem ñi nga xam ne rek ñoom ngeen fi fekk euh, di leen sant bu baax te di leen gërëm. Euh, jërëjëf sëriñ bi ci nuyoo bu am solo boobu kon tey ku ne xam na li waral mbir mi ndax sëriñ bi moom ab liggéeyam daf ko xatal daf ko yaatal bañ na ko ba moom nee na ñëpp la muy lakkin onaadi kullan bilaadi bañ na ko ba ñëpp la woo yaa ax la baxri yaa ax la bari moo jóori baxri bari saqaay moom woon waa géej gi woo waa jéer yi bàyyiwul kenn kon liggéey bu màgg boobu noonu euh, fokk adduna bi yëpp man cee teg seen bët euh, moo tax ni ci teg seen bët nag mooy ñu xamal leen euh, sëriñ bi mooy kan ak ci lan nekkoon ak bisam bi ci lan la si woote moo tax mbokk yi ñëw fii ngir taataanlu man koo wan ñi nga xam ne xëy na seen tànk mënul jote te am nañ yéene ñëw ndax yéene mooy li nga xam ne moom la yàllay fay ki am bëgg a ñëw mënul ñëw euh, yonent bi saasam dafa wax ne euh, inna bil madinati la rijalun masirtum masiran wala xatatum waadin illa kaanu maakum habasa omul ansur mas na wax ne euh, nit day mën naa toog fa mu toog ñu ma la ko mel misaalee rek ay nit di dem fekk ma nga seen biir ndax yéene ju rafet moom la àndee ak ñoom kon loolu tey mooy sababu bis bi nii te sëriñ bi daf ko woote ci ci kaw sunna te yéen ñi mën nañ ne yéen ay jeexeeti Seexul Xadim ndax yéen a doon top ci ay tankam eh, di ñaxtu ngir mëna yoni yoon yi taxaw kon eh, sëñ bi lañ nga ñuy fàttali ci màggal gi ak eh, taxawaay yan moo ci war ak sëriñ bi ci naka la ko ak ci jamono biñ ñu toll nii naka la mbooloo mi demee ak màggal gi bismillah waaw ah, kay jërë ngeen jëf bis bi nga xam ne mooy bisu màggal Touba di suite safar di bis boo xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moo ko. doon defal boppam waaye it joxoon Cheikh Mamadou Moustapha ndigal ne ko waxtu dellu seetee na ngeen ko màggal sëriñ bi njaareem la ko njëkk a màggale ci comité organisation bi nga xam ne ñooy taxawu màggal gi ci ndigalu Cheikh Mahamadou Bachir moom Cheikh Abdou Khadir ñu ànd ko sëriñ Abo Mbacke moom sëriñ Cheikh Say ci laa bokk ma jiite comité comité accueillir hébergement nga xam ne première safar ba 15 jours noonu nooy doon nooy nekk ci kër sëriñ Touba gi ci jumaa ji di dalal gën sëriñ Touba yi ci bépp fànn waaye it ñuy def ci barab bi it bés yàlla sàkk bu safar teroo ñuy jàng alxuraan jàng xasida di ko waajale bés bi li ci sëriñ Touba digle nag jàng alxuraan ak bernde loolu la ci digle ci ndigalu ndigal lu mu joxoon Cheikh Mamadou Moustapha ba ci Cheikh Mamadou muntaxa loolu la digle euh, bis bi nag doon bis boo xam ne. bëri nay ngëneel lool bëri nay ngëneel lool ndax euh, wax nañ ne sëriñ bi daana wax ne àjjana di amut bis sawara it amut bis waaye bu màggalu Tuubaa dikkee ña fa nekk danañ yëg ne tey la màggalu ngir ñoom seeni mbugal suñu borom da koy da koy da koy wàcc maanaam bis boobu moom kenn du leen ci def ay mbugal ñoom waa sawara waa àjjana it bis boobu seeni xéewal day yokk bu baax a baax bañu ñu yëg ne tey la bés bi nga xam ne ci la sëriñ tubaa digal ay ñooñam ñu koy santale sun borom subhanahu wa taala kon loolu mooy bis bi li yëngu bi bari bari loolu mooy bis bi muy joxe ñam ak sant yàlla te jullit bi ci loolu la war sax ala kulli al ak dundam yépp ci la ko war a teg ndax mooy li nga xam ne moo gën a gaaw ci yeggal nit fa sunu borom subhanahu wa taala te mooy li gën a gaaw ci li doomu aadama mooy li gën gaaw ci li aw askan mooy li gën a gaaw ci defar am réew kon bu nu sëriñ bi dimbalee nag diggal ñu loolu bu bu bis bu weeru teroo adduna bépp di rëg-rëgi xel yépp dem Touba jëmm yépp xalaat sëriñ Touba loola mbégte la ci noonu ñi fi dëkk ñuy dalal dalal gën a sëriñ Touba yi nu ànd ak waa ED eh, bi nga xam yéen groupe bi nga xamante ni ne yéen EDB TV nga xamante ni ne eh, da ngeen bokk ci jumtukaayu sëriñ bi bokk ci ñinga xamne bunyi yëngu bëpp bu ñuy yëngu bu ñu sañoon lu lu lu jëm ci sëriñ bi rek lañuy lu jëm ci l'islam rek lañuy wane te loolu moy ngëneel li nga xamanteni ne la jaam bu ne wara daw jëm ndax euh, sëriñ bi limu diglé moy lepp lu way nek mu doon la ngay jariñ saw askan doon la nga xamanteni ne moo gën ci saw askan ci lañuy mëna mën te loolu moy li nga mom la sëriñ bi bëgg euh, magal gi nak màggal la goo xam ne dafa dem ba àdduna bépp yëg nañ ko euh, dem ba romb na darajay doomu aadama dañuy wax ne malaaka yërmande yi sax danañu màggal si jinne yi dañuy màggal si xëy na du ñëpp li ñoo leen di gis waaye nii ko sëriñ bi wootee ak nii mu demee Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na fi yàgg te nga xam ne euh, dafa dafa daf cee wane yoon woo xam ne murid yëpp takkaat seenug laxaay saay yeesa yeesalaat seen i jëm ndax dafay mel ne murid yi nekkul ne dañu xaar ba bis 18 safar rek ñu daal di màggal déedéet da dañoo tàmbali ci premier safar ga bis bu yàlla sàkk kenn ku ne la sa doole man la sa kàttan man ci njàngum alxuraan ak bernde saa boo xëyee yaa nga ca ba jant so loola nag yëmut biir Tuubaa rek dafay mel ne euh, dan ko màndargaale Touba waaye mboolem dëkk yi nga xam ne taalibe yaa nga fa jullit ñaa nga fa boo fa demee ñu ngay yëg ne màggalu Touba jub si na te mooy la Seex Saalihu Mbàkke radiyallahu anhu waxoon ne bu ñaar dendee màggalu Touba jub si weer wi teru kenn ki moom yëg-yëgam képp mooy màggal gaa ngi ñëw ki ci des dana yëg-yëgam ki ci des amu ci benn yëg-yëg nee na ñaari jëmm yooyu ñuy wutalañ ci ay xéewal maanaam ki nga xam ne am na yëg-yëg ne bis bi moom mi ngi ñëw maa ngi koy waajal sëriñ bi da koy téyel boppam yëkkati ko ci kaw te it xéwal ya nga xam ne moom la cay defit sëriñ bi da ko koy yombalal te it noonee lay amee nag mbooleem li doomu aadama di sàkku ci sunu borom subhanahu wa taala waaye nee na ki nga xamante ni ne nag moom amul gis-gis wala yëg-yëg ci ne màggal gaa ngi ñëw moom mel na ne da ko yemaleeg weer yee weesu rek jégul na sax safar teru na nee na kooku moom waxi yaasu billaahi yàlla ñu yàlla ci loolu mooy li nga xamante ni ne mooy waajtaayu bis bi jërëjëf sëriñ Ahmadou Diaw Mansour ci euh, soñña yooyu nga xam ne indi nga ko jotali ko mbokk mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi teew teewlu EDB bu international ak bu national kon loolu mu nekk lu am solo kon tey ñi ngi fii euh, kër baay sëriñ Diaw Mansour lan ngay xamal mbooloo mi ñi nga xam ne ñi ngi teewlu jamono jiñ toll nii télé bi nga xam mom la ñëpp di bayyi xel muy eh, DB eh, national ak international lan ngay baxé eh, mbokk yi ci digënté sa mam Cheikh Mansour Diop mi nga xam Serigne Touba moko xéxal lan ngay fatali mbokk yi seen digënté ñom ñaar ndax mbokk yi gëna a jëriñu a mbokk yi gëna a a xam tamit kan mooy Cheikhul Khadim ak lan la ko suñu borom mayoon. waaw Diop Serigne Mor Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul dafa doon ko xam suñ boroom moo ko sàkk jaarale ko ci ñaari waajur yoo xamante ni ne ñu ràññeeku lañ mm, muy Maam Mor Anta ak soxna jaaritu lay Mariama Bousso waaye it ba yàlla dogalee suñ boroom def ci moom la ko soob mag ñëpp da wut si ko suñu maam Cheikh Mansour Diaw radiyallahu anhu dafa doon ki ñi ñi njëkk ci sëriñ Touba. am na ñu ne moom juróom ñi njëkk sëriñ Tuubaa ci la bokk maanaam juróom ñi njëkk a jébbalu ci la bokk ba muy jébbalu ci sëriñ Tuubaa it sëriñ Tuubaa demagul ci géej gi Tuubaa gi it la ko sëriñ Tuubaa dëkkaloon bokk na ñi ñi njëkk a am kër Tuubaa moom seex Cheikh Mansour Diaw ndax wax nañ ne bi sëriñ Tuubaa sancee Daaru Xuddoos sant da sanc Daaru Naar muy Daaru Marnaan booba fee ca kër sëriñ Saaliw fi bépp gi nekkoon fi sa kër sëriñ Tuubaa gi njëkk a nekk muy fee barab bu sëriñ ba nekk wala que sëñ Tuubaa njëkk a nekk booba sëriñ bi da ko sanc loon ci euh, càmmooñam tuuti rek fi ñëw aynu rahmati ci côté boobu la ko sanc kër joxoon ko ndigal na ko nanga na nga fa nekk booba it bëri na ci mag ñi ñoo xam ne bu masaan ñëw ci sëriñ bi bi sëriñ bi jógee ci këram gu mag googu nekk daru marnaan fi mu daal dalal naar yi euh, bëri na mag ñoo xam ne bu masaan ñëw kër Cheikh Mansour Diaw la ñuy jaar fa la ñuy wàcc fa la ñuy dal euh, te loolu lu lu lu lu am la loo xam ne bëri na ci mag ñi ku ci mel ne maam Cheikh fa la daan dal ak ñeneen ci mag ñi doog a dem ci sëriñ bi bi sëriñ bi dem ci géej gi Touba gii la ko bàyyi moom Cheikh Mansour jaw mu mu doon koo xam ne euh, ku teel a jox boppam sëriñ bi la ku teel a ràññeeku la ku te ku sëriñ bi teel a sédd la mag ñi sax nee nañ bi muy dem ci sëriñ bi. dafa fess del ndax da dik nuyu serigne bi mu ne ko noo tudd ko mu ne ko Mansour mu ne ko bal Mansouran ko ñu dimbali nga eh, wax nañ ne bés bi mu dikke ci serigne bi bi ko serigne bi yewi ci lako ko mom Cheikh Mansour Diaw mu doon ko xamne ne eh, bi serigne bi dem ci geej gi fi lako ko Touba mu nekk fi bi serigne bi delu ba dem gannar dem na gannar ay yoon seti serigne bi ay ndawamit dawuñu jog gannar amna ci ñu ku ñuy wax maam Yàqut Bamba dafa daan def waxtu wu ne sëriñ bi di ko yónni moom Cheikh Mansour ak ñeneen waaye moom bi mu demee ba gis ngëneelu liggéeyal sëriñ tubaa ci ndigal li ko Cheikh Mansour Diaw joxoon ba mu demee ca daara sëriñ tubaa ji ca gànnaar dafa daal di soppiwu turam dudd Yàqut Bamba euh, bi mu defee loolu euh, sëriñ Cheikh Mansour Diaw waat ndaw sëriñ Touba ne moom ne am na ndaw lu mu fi yónnee woon te yeewee guma ko laaj jëwrin yi ñu ne ko am na ki fi mujj ñëw de nee na Yàqut Bamba la tudd mu ne ko mooma mu daan koy booleeg ndaw li mujjoon na ñëw yeewi leen pëstéef boobu nga xam ne moom la amoon moom Cheikh Mansour Diaw moom la mboolem mag ñi mu àndaloon it amoon pëstéef boobu it moo taxoon bi bi ñibbisee njaareem euh, dem njaareem nekk fa ak sëriñ bi waaye it doonoon koo xam ne it ku mënoon a jàmm yàlla la doonoon koo xam ne ku rafetoon ab taxawaay la ci digganteem ak sëriñ bi ndax li ko waral mooy bi sëriñ bi ñibbisee njaareem ba defar jàkka ji nekk ci biir biir njaareem mooy bokkut ak jumaa ji mooy jàkka ci biir jàpp jàkka ji nekk ci biir biir kër gu mag nga xam ne fa la sëriñ bi lépp daana fa julee man eh, Mansour jaw wax nañ ne amoon na fa barab bu mu daan jullee boo xam ne même bu julli siwut kenn du ca toog am na bis boo xam ne sëriñ bi daa julli ba noppi gestu daan ne eh, xanaa man Mansour jaw daa julli siwut ñu ne ko waaw mu ne moo tax sàppe si wéet nga xam ne am na ndaw loo xam ne dafa jógee foofu daw dem bustaan Bostaan jaw mi ngi ko sanc 1914 moom Cheikh Mansour Diaw ci la ko sanc ci ndigalu Serigne Touba ndax moo ne ko woon sancal foo mën a eh, eh, tàggatee fare yi maanaam foo mën a yoree yaree fare yi da ngay ànd ak yow Cheikh Mansour loola da ko defoon ndigal loo xam ne Serigne Touba jox ko ko waaye wax nañ ne ba mu sancee Bostaan Diaw 1914 moom Cheikh Mansour Diaw eh, bant bu ñu daggee Bostaan ci wanagu wanagu seex Cheikh Mansour wanagu Serigne Touba lañ ko lañ ko xambee am na ku ko soxna Fat ja nettali woon ne ko Cheikh Mansour dey mboolem eh, bant yi mu daggee woon bustaan ci mbana ko waa barsàq yi lañ ko lañ ko xamee nga xam ne eh, wax nañ ne eh, bokkoon na ci ña daan yoonu sayya di ko indi njaareem am na mag ñu sax jaaxle woon ne Cheikh Mansour jaw moom ndekete bu yenoo say bustaan <coughs> ba njaareem du ko yennee ko am pël bu ko weddi dina naa ko topp waaye pël bi topp na ko ba njaareem sëriñ bi yenn ko wut say bi mooy ki nga xam ne it moom la Serigne Touba njëkk a defloo defarloo kërug njaareem gi booba sant sampi bant moo xewoon yaakaar naa ñi ñi ñi nga xam ne ñi ngi dem Casamance xam nañ li sampi bant bari na kër yoo xam ne bant jana lañ koy sant samp ba mu wër bant par bant bant yooyu wax nañ ne ña ngi ko doon daggee ca ginnaaw kuppentum booba génn giléem lañu yor ñeñ dañuy dox fa lañ ko daggee defar ko ba mu rafet euh, te it loolu mooy li nga xamante ni ne moom bokk na ci ndigal yi ko Serigne joxoon Cheikh Mansour Diawit dafa jox ak roxam Serigne Touba addiya 1920 ci la jox ak roxam Serigne Touba ndax Serigne Touba moo woote euh, wax na Jibril alayhi salaam yàlla sunu borom yónni na fi ndaw mu war a jël bakkan te bakkan boobu ak dama mel na ne jotagul Cheikh Mansour ne ko Mbàkke man de jekk naa sama liggéey mat na loolu 1920 la xew ba mu ko waxee loolu sëriñ bi ñaanal ko mu dem mu dem lu bustaan ay fan yu néew daal di daal di làqu sëriñ bi ne nañ ko indi njaareem sëriñ Tuubaa ci boppam moo ko jullee ci njaareem moo dox ak tànkam ba ca barab bañ ko denc ci njaareem rëdd ci tànkam bu sell ba taxaw ñu gas bàmmeel ba seexul xaddim ci boppam moo waxal ca làmmiñu boppam seede ya ba mu koy wax sëriñ Abibu Mbàkke ma ko teewe woon moo ko nettali sama baay baay sëriñ Jaw Mansour ne ko ba sëriñ Tuubaa jullee sa baay maa nga ca sàppe sa maa ci gënoon nekk ndaw ne ko keroog ba mu koy denc moo taxaw wax ne Mansour mii am na àjjana ba am cang booy nee na sëñ Tuubaa ko wax daan ne nag wañ koy teeru àjjana nit ak ginne ëttunuñ fa laraja sëñ Abibu bu ma ko wax sama bàyyi ne ko sëñ Tuubaa ko wax ba mu jàllee ay fan yu néew poussière bu bëri ñëw njaareeb ñu jaaxle sëñ Abdou Karim Touré ci boppam moo ñëw ci sëriñ bi fekk mu fatu mu yokk kàddoom sëriñ bi génn ne ko lu xew mu ne ko poussière bi moo ñu jaaxal mu ne ko malaaka yi teeru Cheikh Mansour Diaw ci àjjana seen laafi moo indi poussière bi fii nii ci àdduna loola sëñ Abdou Karim Touré moo doomam moo ko nettali sama wajur muy loo xamante ni ne digganteem ak Serigne Touba la moom Cheikh Mansour Diaw Baye Sëñ Diaw Mansour euh, wax nañ ne Serigne tubaa moo ko tuddul boppam muy suñu wajur Serigne tubaa ko leewu tudd ko jox ko tur Serigne Touba ak ni mu ñàkkee jot képp kum leewu jox la tur am nga cër ci suñu borom subhaanahu wa taala waaye nag ku xam la baayam def joxe sa bakkan addiya faatu juróom-ñaari at sama maam jox na ko Serigne Touba sëñ Tuubaa tudd sama waajur muy se bàyyi sëñ Jaw Mansour muy waajur sëñ Cheikh Jaw Mansour wi nga xam ne mooy sunu xalifa di xalifa Cheikh Mansour Jaw euh, mu doon koo xamante ni ne jàmbaar la woon joo xam ne Cheikhul seex Cheikh Mamadou Moussa la ko boole lool mu doon ki nga xam ne it moom itam baayam moo njëkk liggéey kërug njaareem waaye moom ci boppam moom la Cheikh Moustapha njëkk a liggéeyloo kërug bayti mooy bayti fii ñu denc bagage Cheikhul Khadim yi bàyyi sëñ Jaw Mansour moo ko njëkk a liggéey loola it di ay pàgguteef yoo xam ne am nañ ko ci sëriñ Touba mu doon koo xam ne it Cheikh Moustapha xool na ko mu jàng mu teg loxoom ci boppam ne ko ndax yàlla rus eh, ba mu ba mu am ñetti fan la kon lii mooy kër gi ci yitte ji ñu nekk mooy minal xadimi rek tàmbale ci sëriñ bi yem ci sëriñ bi amuñu benn bëgg-bëgg mooy fa maam ya nekkoon wajur yi nekk fa fa ñu nekk ci ginnaaw Serigne Cheikh Diaw Mansour mu nekk ci ginnaaw Cheikh Moustapha Mbacke Mohamed di ko déglu tey it la sëriñ bi doon def nag lépp da koy yokk lépp lépp luñ mësan defal sëriñ bi rek da ko yokk wàññiwu ci dara njaboot gi it doon ñoo xamante ni ne fu ñu mën di nekk ci Sénégal ak bitim réew seen yitte jëpp mooy kër Baye Serigne man Mansour moom la ñuy xaar moom la ñuy déglu moom la ñuy teewlu lu sëriñ bi wax la ñu wax lu sëriñ bi waxut waxuñu ko lépp luñ sëriñ bu bëgg rek ña nga ca kon nii daal lañu fas yéene nekkee ci màggalu Touba gii di waxtaane sëriñ Touba di waxtaane mag ñi di di teral gan ñi ala kulli alin comme ni ko Cheikh Mouhamadou Mountakha santaane yàlla na fi yàgg te wér yàlla yàggal fi kilifa yi te nu wér yéen itam yàlla dafa leen taw feex euh, jërëjëf sëriñ bi ci leeral yi am na solo trop euh, li mu wax ji am na solo trop day fàttali rek euh, ñu xam Seexul Xadim kan la woon ak ci la nekkoon nit nag bu amee fulla day nekk ci la bàyyam nekkoon ak ay maamam comme ni ko suñu borom waxee wala si na amunu watabahum zuriyaatuhum bil imaani alhaqna bihim zuriyaatuhum képp koo xam ne da nga nekk la sa bàyyi nekkoon ak sa maamee suñu borom dana la yëkkati yóbbu la sa darajay bàyyi ak sa maqamee maamee al waladul jism nag moom alal képp la mën a doon waaye nag ñi nga xam ne moom dañoo toppoon seen baay ci ci kaw ndigalul Seexul Xadim euh, ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoo fi sax ba léegi ndax sëriñ bi moom li mu jàngale mooy laa tafaalu shay'an bi xayris ni kon ñoom ci loolu la ñu nekkoon kon sëñ bi nga tàggatoo rek bu dul tàggatoo nga ñaanal tamit te télé bi suñu borom euh, yokk ko ba mu nekk télé yi gën a am doole ci ci adduna bi ndax ñoom kat ay ndaw lañ yoo xam ne dañoo mel ne dañoo jug ngir xeñcu bëgg bu Serigne Touba jaar ci yoon yi muy waa EDB euh, e international ak national kon nga tàggatoo rek nga ñaanal leen euh, fàttali leen liggéeyub Serigne Touba bi ñu daal di yeeyoo ko incha allah taala waaw jërëjëf xam naa di leen sant di leen gërëm rek ci taxawaay beeg positif bi ndax liggéey mënut a ñàkk yëngu mënut a ñàkk jaarale ko ci yoon bi nga xamante ni ne nag euh, mooy yoon lislaam nga xam ne moom la sëriñ bi santaane ne sëriñ bi léppam jaamu yàlla ak liggéey rek la jaamu yàlla ak liggéey loolu la santaane euh, te loolu mooy li nga xam ne mooy yëfi jullit mooy yëfi taalibe mooy yëfi gor te mooy li nga xamante ni ne ku ci nekk loo bëgg suñu borom dana la ko defal ndax boo dee jaamu yàlla da nga am ndimbal ci lépp loo xamante ni ne moom la yàlla di maye suñu borom dana la ci jox sab cër boo dee liggéey it da nga am ndimbalul wërsëg lepp lu sa wërsëg nek suñu borom dañ la jox ab cër nga bolé ci nak maandu bu ko défé kenn du la top kenn du la tiiñal la ca dess nak moy kenn ku ci nek la nga yéene sa bop ci jamm ak nga yéene ko sa morom mi ngay jakarlo té xamné ne mi mayé mom nopp na ci ñëpp waaye nak bu féké né da nga yéene sa bop jamm yépp yéene sa bop te xéewal té té tey bi té jullit te yéene wu ko kenn it mën na yomb bëri na jafe-jafe yu xew loolu rek moo koy waral kon nan ko moytu ndaw nag bu bëggee bu bëggee bu bëggee yokk xewalam yokk wéram day nangoo jaamu yàlla nangoo liggéey nangoo sellal bu ko defee lépp lu mu bëgg suñu borom dana ko ci fekk kon noo ngi leen koy dénk euh, euh, barab bii ngeen nekk nag di EDB TV international doon na loo xamante ni ne yoon wi ngeen jaar rek mooy yoon wi gën ci yéen mooy liggéey lislaam liggéey mooy liggéeyal Sëriñ tubaa ndax Sëriñ Tuubaa mooy lislaam lépp lu ngeen nekk rek na ngeen ci góorlu te am ci pas-pas am ci pëstéef ñoo ngi ñaan suñu borom ci barke bés bu tedd bii suñu borom def ko tele boo xam ne fépp lay dem ci àdduna bi lépp lu ngeen ci yéen it suñu borom fekk si leen ci noo ngi leen di sant di leen gërëm di fas yéene ànd ak yéen seen liggéey fu ñu mën di nekk ndax nun sëriñ bi rek la ñu am képp ku ci nekk ñun ngay jàppale lu ci waaye def ñun nga ko defal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, jërëjëf euh, sëriñ Ahmadou Diaw Mansour ci kàddu yi am na solo lool ak soññe yi ak fàttali Seex bi ñu fi bàyyi woon waa EDB TV national ak international ñu ngi lay euh, sant ci taxawaay bi ñoom it li nga leen ñaanal mu loolu moo leen jikk ndax kenn ku nekk bu sañoon li ngay nekk mu gën a jëm ca kanam ndax ñoom ñu am solo lañ ci liggéey bi ñu leen di bàyyi xel lañ kon yàlla na leen sëriñ bi teg loxo ndax képp kum teg loxo rek eh, ca kaw rek ngay jëm ak ca kanam kon ñi ngi rafetlu bu baax émission bi ak jotaay bi ak yombal gi ñu ko yombal ak technicien yi nga xam ne ànd nañu ak ñoom di ñaan suñu borom tabaraka taala mu defal ñu màggalu jàmm in uridu ila al islaha mastartum wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullah قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب واقبل به نزمي هذا يا